Euh, ak daaira al fadliya nag dégg naa wax ju bari ci lool ki doon wax delluwut sax ci jawaahiral maani waaye dafa dellu ci taqdisul asxaas fil fikri suufi nga xam ni kooku daanaka ay commentaire u jàmbur lay commentaire ku mel ni Tahir moom mu tuddee ko oustaz tey sàllalu Cheikh Tidiane di sàllalu Cheikh Omar di sàllalu Cheikh Ibrahim ñoom ñëpp mu di leen sàllalu waaye Tahir may moom dañ koy jox darajaam mbam mat sëkk moom boroom taqdis dafa wax ni day wax ci daayira al fatliya day wax ci daayira al fatliya indi wax ji ñëw ci jawaahiral maani waaye jàpp naa ni booy def tasarruf ci mbirum jàmbur da nga ko indi ba mat bu ci tëb xaraf waaye wax lii bàyyi lii wax lii bàyyi lii ba mu indee wax ji du jarul ma ci jaaraat ndax wax ji jaar na fi jaaraat fi ba pare mu def commentaire am ne nulaaxidu anna hadihi daaira xaarijatun an sharia al لكونها خارجة عن الأمر والنهي موم مو ديف كومنتيرام ني دايره بي نون لين سي سيتانتال موي دافا ген شريعه الاسلاميه waye tamit dafa genn ci dairatul amri wan nahy limay laaj moy tay li ndax deug lan lañ koy dëggale waxu taayir maye giri bi nga xam ne kuy wër naafiq jàpp ko ndax lépp lu mu wax ci tariqa tijaan mu ngi ko jële maanaam li ci dëgg mu ngi ko jëlee ci kër Cheikh Ibrahim li ci du dëgg yi tamit lam xam ci lam jëlee ci kër Cheikh Ibrahim ci la sos ndax workat la moo tax mane ne naafiq la dañ ko financé xaalis ginnaaw ba Cheikh Ibrahim radiallahu anhu génnee àdduna mu ñëw fekk fi xalifaam bi ñuy wax Sidi Alin Cissé radiallahu anhu ñëw ne dafa bëgg jàpp tariqa tijaan ñu jox ko dafa bëgg tarbiya ci faydatu tijaan ya ñu jox ko waaye amut ci woon pas-pas ndax dafa ñëwoon ngir wuruj dafa ñëwoon ngir espionné moo tax xéewal bi ci yàlla def du ko mës a am ba mu génnee ci loolu nag mu dem di bind téere ne day xas Cheikh Ibrahim day xas tariqa tijaan day xas nangam moo tax kii nga xam ne mooy Ahmad Lo référé wul lu dul ci kooku mu ne yaqulu Cheikh Mouhamad Tahir Maigri mu indi wax ji muy تلك الدائرة كانت واقعة وراء دين الإسلام كله لأن الإسلام يتوقف على الأمر والنهي xam nga ni lii mooy fen wi gën a rëy ci fen yi benn daayiratul fadliya ku koy dàq dàq nga alquran daayiratul képp ku koy dàq dàq nga alquran dàq nga sunna dinaa indi ay ayat yu bari indil la xadis bu koy saxal kon euh, xam nga inkaar daayiratul fadli ne amul ñàkk xam la te da ngay linkaar alquran al karim fadli Cheikh Tidiane radiallahu anhu amul benn yoon fu mu waxee ni ku ci dugg bul jaamu yàlla del mooy yàlla ëllëg boo dee àjjana nga jëm déedéet loolu Cheikh Tidiane radiallahu anhu mosu ko wax gis nga linkaar daairatul fadl képp ku koy inkaar rek li njëkk mooy da ngay inkaar ne daaira fadliyatullahi moom am fadlullahi moom amut fadlullahi moom amut loolu ngay njëkk inkaar boo inkaaree ne daaira boobu amut aslan xanaa nag li nga saxal ni lislaam moom am na daaira bu fekkee loolu nga wax daairatul fadl bi nga xam ni Cheikh Tijaan radiallahu anhu taqrir na ko nga génne ko nag ci daairatul islam yaw te loolu saa yoo ko defee weddi nga ay aaya saa yoo ko defee weddi nga nafsu xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li ñuy tuddee ak dawairul xaq kenn maanaam ni dawaayir yooyu solo biñ am làmmiñ lottu na sax ci tudd ko moo tax alquran jàngal na leen sax ne leen zannina billahi na saw alayhim daairatu saw wa yàlla njort bu ñaaw rek yaa nekk ci daairatu suu yow sànjab yàlla war na la rëbbaangeek yàlla war na la te yàlla ngi lay de xareel jahannama aka bon boobule mujj kon daaira fadliya mooy dogal ak yàlla bi nga xam ne dogal ak azali la bim dogal ci jaam ki yàlla dogal ci moom ne aljana la jëm kooku jàppam yeeg jullim yeeg wooram yi dugalu ko aljana loolu la waxu Cheikh Tidiane bi wund li ko dugal aljana mooy ndogalum yàlla bi jiitu ci moom ndax gis nga yonent bi sallallahu lu tax mu wax ni nit dina xëy nekk yéeféer waaye gont nekk jullit loolu mooy lan mooy e, al al al al xukmul ilahi wala al machiatul ilahiya lam dogal ci jàmba mooy bu xëyee nekk jullit ànd ak ni nag bëccëg bi yëpp def ci mooy yàlla mus def lu baax waaye ngoon gi nekk na jullit rek faral nañ ko bàkkaaram yooyu dee na dugg naa jana bilaa xisaabin wala iqaab kon loolu du dégg-dégg bu sori du amal fi lu amut du du du jomb képp kuy wax ni nag daayratul fadli amut yow moomu danga ngaa réeree dëgg-dëgg ak bi sallallahu alayhi te yaa ngi weddee alquranul karim ndax ngëneelal yàlla nam yaatoo ak yàlla nam ko tuddee ci alquran ngëneel li tàmbalee ci mbind bi la bind yàlla bind jëlee la ci ban جعل لك النطفة جعل لك رحم جعل لك علاقة جعل لك با با دفل لسوخ دفل لياب جن لنجنك نت نغوار كوسانت نغني لاموت مجري لفوفو وان لني مال بن تر في أحسن تقويم نك لو نغني الله نغنيو دي ورو من ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك falyan xoolal ci beneen laay falyandur al insaanu ila taami anna sababna al maa sabba summa saqaqna al arda saqfa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytuna wa naxla wa naxla wa xadaaiqa gulba wa fakihatan wa abba ngir lan mataan lakum wa li anaamikum lii yëpp ay xéwal lu yàlla defal ni aaya yi junj nag ngëneel ak yàlla nga xam ni mooy daayiral fadliya ëpp nañ téeméer ci alquran ولولا دفاع الله دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله واسع عليم دجيخ اي برين لول na ndax dafa jomb ci yàlla wala yàlla ay mayam dafa xat ba jaam boo xam ne defalut ko dara ci lu baax mu jël ko dugal ko àjjana ndax loolu yàlla dafa jomb ci moom képp kuy sikki sàkk loolu ci yàlla rek xamal ni yow da ngaa ma yëpp yàlla ay yu bari yëpp nag ñëw tasrix lii boo ko linkaaree munoo koo sës ci man ah, looy maanaam dalil manqul wala maaqul munu nekk ndax alquran moo ko yaxal mu wér peñ nekk ci suñ kanam yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngale na ay xadis yoo xam ne rot na ci sunna am na ci yoo xam ne ibnu Hibbaan solo na ko am na ci yoo xam ne Tirmisi wala sax Abu Daawud solo na ko lan la wax boo demee ci masnadu imaam Ahmad ci sanad bu wér ñu jëlee ci sayyidna Abu Bakrin boo demee ci masjid ci ñu jëlee seydna abubakrin siddiq radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne yàlla waxtiitu sabina alfan min ummati yadxuluna aljanna bi xeyri xisaabin ala qalbi rajulin waxid yàlla may na ma juróom ñaar fukki junni ci sama xeet ñoo xam ne dañuy dugaa àjjana ci luñ leen xisaab duñ leen iqaab dañuy taxawee nag taxawaayu xoolu benn góor mu ne ma ñaan yàlla mu yokkal ma mu yokkal ma benn yokkal kenn ku nekk ci ñoom mu ànd ak juróom ñaar fukki junni ndax loolu yow da da nga iñaane Cheikh Tidiane ak kuréel gi nga xam ne moom lañ àndal ñu bokk ci loolu xadis bii nag seen sëriñ sax albani wéral na ku ba demee ci silsilaam ba di nga ko fa fekk waaye nag bu ko bëggoon a daaneel sax xadis bi dafa bari ay shawahid ba tey ci musnad imam ahmad rotaat na ci sunan abi daawud sahih ibn lan lan lañ jàngale xadis boo xam ne abi umamata moo ko solo ci sanad bu wér jële ci yonantu bi sallallahu alayhi wasallam yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ne waadani rabbi an yudxila aljannata min ummati sabina alfan bila xisaabin alayhim wala adabin maa kulli alfin sabun wa danga ci bëgg génne taalibe Cheikh Tidiane yow bu fekkoon nit dëgg bépp jullit da koy yéene mu bokk ci lii lii mooy daayira alfadliya lii ñaari xadis yi jàngale mooy daayira alfadliya waxuñu kenn daayira alfadliya ku ci bokk doo topp ndigal waxuñu kenn doo bàyyi tere déedéet dañ la ne bu la yàlla dugalee ci daayiratul fadliya dina la dugal àjjana te du la dugalee àjjana ci sababu sa topp jëf wala ci sababu te def ab bàkkaar kon daf koy def ci coobaree moom masi al machi al ilahiya loolu mooy daayiral fadliya kon ñàkk dégg day indi lu bëree bari hadis bi hadis bi leer na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yàlla ma dig ne dina dugal ci sama xeet juróom-ñaar fukki junni du leen xisaab du leen mbugal kenn ku nekk nag eh, maa kulli alfin sabun junni yu nekk dañuy ànd ak juróom-ñaar fukk waaye tamit yàlla dina sëq ñetti sëq ci sëqam nga moom tabal leen àjjana ñu yàlla di sëq nag yow boo ci bëggee génn say mbokk jullit xanaa yow danga nga da nga sa xol moo xat ba nga bëgg xatal mayab yàlla xadis boobu Tirmisi bi solo na ko ñi ma tudd nii yëpp solo nañ ko lu wér a wér a lu wér wér la loo xam ne <clears throat> ñëpp mën nañ dellu ci téere yi daal koy seeti fi may daanelee nag mooy tuumaal bi ngeen di tuumaal Cheikh Tidiane ak i taalibeem ne toppuñu sariya laa wax ni du dëgg ndax ndax tariqa Tidiane dafa tënku ci al ibada wa rida wa taslim Cheikh Tidiane radiallahu waxoon nañu wa ma umiru illa li yaabudullah muxlisina lahu diin diggaleefu leen lu dul ngeen jaamu yàlla sellalal ko jaamu gi ngeen jaamu yàlla sellalal ko jaamu gi te ci loolu la yar ay taalibeem jaamu yàlla sellalal ko jaamu giñ koy jaamu loolu la yar ay taalibeem moo tax al ibaada moom daf ko firee ci ñaari maana maana bu njëkk bi mooy al izaanu li ahkaami rububiya wa ahkaami rububiyati ma shadza anha shay'un min al maxluqaat maanaam wommatul attay rububiyatu yi te attay rububiya mbindeef yi ñëpp a koy topp ñaareel bi mooy ittibaau rusul alayhi salaatu wassalaam alayhimu salaatu wassalaam fi ma jaau bihi an il xaqi topp yal na yàlla julli te sëlmal ci ñoom ci lañ jëlee ci seen borom loolu mooy bu ñaareel bi ñetteel bi mooy ibaada mooy nga xam sa bopp ba mën a ràññee sifaatu naqs yi nekk ci yow melow manqué yi ba nga mën a xam sa boroom ci melow matam wi xam ne yow danga nga sa boroom rek a mat ñii la ñuy jaamu yàlla lii la Cheikh Tidiane indi kon ku ko bëgg a taqal leneen yow yaa ko yaa ko yaa ko taqal waaye moom wootewul leneen wootewul leneen arrida wa taslim loolu jeexal na wax lu yàlla dogal ci yow nga gërëm ko te nga jébbal sa bopp yàlla lii la Cheikh Tidiane yàlla lum dogal ci yow nga gërëm ko mooy nga jëfee ay ndigalam bàyyi ay teram ndax noonu la firee taqwa sax imtisaalul awamiri wajtinaabi nawahi min xaysu yardallah la min xaysu tarda kon nag am na yenn yoo xam ni nit bu koy wax daf ko war a settantal bu baax balaa mu koy wax kon euh, xam naa